mbébétam moom kuréel gii di Touba ca kanam jaare ko ci commission scientifique et culturelle mooy tabax ñeenti daara yu yees peq ci dëkk bu sell bi di Touba ci atum 2021 lii nag di benn ci fi ñu ko war a tàmbalee rek war a toll ci juróom benn fukki daara bu njigee ci ji war a jàll ci yeneen ñeenti daara yoo xam ne tubaa ca kanam daf koy taxawal mu bokk ci daara yi nga xam ne yuy jege askan wi lay doon nekk daara yi Touba ca kanam yoo xam ne ay tànneefi Touba ca kanam ñoo fay jànge la war ci daara yi lépp nag Touba ci kanam moom mooy defar daara ji moom mooy warlul ña fay jàngi si daal loolu jàngi ñibbisi rek du leen ca war. njàngale ñeel daara yi ñor loolu association Touba ca kanam Serigne Mamour Mbacke moom mi nga xam ne moo jiite commission culturelle et scientifique di wax ne du ñu yem foofee ndaxte danañ ci dugal yi koppar rax ci dolli tàggat ay jàngalekat. yaakaar naa bii mooy atum ñetteel moo xam ne mi ngi def li ñuy wax maanaam réflexion daara yi bi njëkk a def mi ngi ko defoon daaw jéeg. lu tolloon ci fanweeri daara ak juróom la ci defoon bu daaw bi it demoon na ba ci 71 eh, daara ren jii it ñu ngi naal 60 daara yoo xam ne dañu ko bëgg a réfectionné incha allah waaye ñu fu mu toll rek di xalaat loo xam ne moo tax daara gën a jëm kanam ba daaw année boobu bi jàll daaw ci lañ def li ñuy wax formation sëriñ daara fi mu toll nii incha allah bi bu ren jii jël jàlle jàmm li ñu bëgg sotti danañ former 440 sëriñ daara incha allah. ñu toog toogaat xalaataat ne kat dëkk bi jàngukaay yi xaw naa manqué te yitte ji yaatu na lool ci wàll googu ñu xalaat nekkat nañ kon def li ñuy wax daaray tànneef bu ñu ko bëggee leeral rek xëy ci ñëpp mën ko xam mooy daara publique jàng ñibbi lay doon daara joo xam ne ñu fi jàngee dañuy xëy si di gontu si ni ñu ko fas a tëral nag mooy dañ koy def eh, ñaari genn wàll mu daara bu nekk dana jël juróom fukki donga fukk ak ñaar fukk góor yu jigéen ñaar fukk góor ñaar fukk euh, dong yu jigéen ak yu góor bu ci nekk nag góor a jàngal ñii jigéen ñoo jàngal ñii ndax mu gën a dëppoo ak charte l'islam bu noppee nag incha allah xam ne nañu ko bëgg tànn rek mooy euh, ubbi képp daal koo xam ne xëy na sa sens moo ci nekk ñu ko tànn tànn ko ci ak maandu maandu gu mat sëkk bu ko defee tamit ñu jàngale ñu tànn lañ tànn koo xam ne ku ca nekk dangay am euh, mustawa bi ñu yittewoo ci jàngale alxuraanul karim njàng mu set moo xam ne dana mel ni ñu ko bëggee li ko waral nag mooy rek euh, taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci jàngale ci Touba dañu bëgg incha allah rabbi ren jii bëgg nañoo taxawal ñeenti daara waaye lim bi moom bëgg nañ mu dem ba téeméer ba nga xam ne Touba foo dëkk ci Touba boo génnee rek jàng jibbi wax sa kër sa kër sa kër way jur mu teg bëtam ci yow ngay jàng di wàcc te daara yooyu incha allah bu ko yàlla dogalee nit sax waxuma la sax firiji wala mën a jàng waaye mën faa dem sax ba mokkal alxuraan mokkal gu set wecc njàng mu set mi daal moo taxoon ñu taxawal liggéey boobu di ci woo ñëpp nag di sant tax di sant ñëpp di ak taxawaay yëpp mën na sëkk macha allah sant sëriñ xabaat mi nga xam ne moom sëriñ Falilou di ko dalal bu baax a baax a baax. ci diwaanu Guédé daara ja moom tàmbali woon nañ ko tabax Touba ca kanam nam mu ko yeggalee sëriñ Abdou Lahad Abibou Mbacke moom mi nga xam ne moo wax ci kàddu Touba ca di wax ne fas nañu yéene yeggale boobu mbëbët bu sumb yeneen. suñu farlu ñaan yeeg ñu ngi lay nuyu ay waat waat bu baax ci muy fekk daaw boo xam ne tàmbali woon nga ko waaye nga gis Touba ca kanam jëm ca nga gàttandu leen ca fab ko yëkkati ko teg seen loxo ne leen ñu ngi leen àggal leen loolu mooy lu yàlla teppataal sa jëmm nga ci nga ci doon def nga ci doon wane kon doo ko defe noonu kon ak sa jëf ji firndeel na loolu ndax bu fekkoon gis sa bopp taxoon nga di ko def wala bëgg ku la ci dégg wala bëgg sëñ Touba kanam tegtal ne moomu ko sëñ Touba Touba Ca Kanam moom li ñu yow nag sëñ Touba ko wéy ci sëñ Touba ñaan na sëñ Mamadou Xabaan moom bu baax ci liggéey bi nga xam ne ay kilifaam am nañ sama yaakaar ba def ko ci loxoom lañ séentu ci moom yàlla nañ ci gis lu ko kawe ci sëñ Touba mi ngi ciy liggéeyal yàlla na la ci jàppale ci baatu Cheikh Mamadou Fadil sama ba foo ko bëgg yóbbu ak loo ci bëgg ak noo ko bëggee nga man ko ne defe ànd ko wér ak mucc dan ànd ko ñun ñëpp mu nekkoon jotaay bu am solo ay kilifa yu takko takko bokkoon ca ña nga xam ne ñoo doon teg ñaari xeer ca Gédé ak ca Bagdad Serigne Xabban Mbàkke moom mi nga xam ne moom la sëñ Muntaxa dénk daara yi gunge woon ci boobu jotaay Serigne Abibu ak Serigne Abdou Lahad Abibu. ndax Sëriñ Tuubaa bi ñu sañ ci dëkk bii Tuubaa liggéey rek ko war ak jàng ak jaamu yàlla kon nag bu ñu nekkee ci sas woowu ñu am jëwriñ ji mën sëñ Mahamadou Mountakha yàlla jàgg tër amiin benn soxla du liggéey sëñ amul benn soxla du liggéey sëñ Tuubaa rek li mu waxoon ne ku dem ma dem ku demul ma dem joojee nag waxtu ne loolu lay doxee tawfeex ñu yàlla defal ñëpp lool mu yàgg fi lool si loolu kattan gu kattan gu bëree ak ñun donga yëpp defal xewal ak tawfeex ba lu mu joxañ rek mën a ni mu ko bëggee commission culturelle et scientifique di leeral ne gannaaw ñaari daara yi nga xam ne danañ ko taxawal ci Guédé ak Bagdad yeneen ñaari ci atum 2021 ñu ngi ko fas yéene yóbbu Lansar ak Daaru Mannaan